asalaamualeykum wa rahmatulah taala wa barakaatu mbokk yi nga xam ne yéen ñuy seetaan ci bés bi nga xam ne moom mooy altine di le 29 juillet 2013 ñu am mbégte ak contentement bu mag di ànd ak yéen di leen gërëm di leen sant waaye tamit di wax na mant ko bi am suñu diggante ak yéen wax fa dëgg yàlla gërëm nañ leen sant nañ leen ajjuma buñ mu mujjee ba def kiraama taw bi. mboolem baykat yi nekk ci àdduna bi woote nañu ci serveur bi di wax ne dañu bëgg ñu ñëw seen dëkk roosal leen ko bu soobee yàlla danañ ko def ndax waxtaan nañ ci ak ministre de l'agriculture ak bu élevage su ko defee tey ñu ngi ànd ak tamit ñi nga xam ne ñoo ñuy gunge di sponsor yi am doole yi nga xam ne dañu bëgg vraiment émission bi neex la vache qui rit mooy fromage bi nga xam ne fromage yu cosaan la ndax yàgg nag ñun ku juddu fekk la vache qui rit ànd ak moom di jël sa mburu di ba mu ritax ba nag mu dem nga xam ko mu nooy dara dàq ko ñu ne déet na waaye waa best ànd ak panthère daa day ñëw ne bu fekkee ne da nga bëgg a njaxlaf li nga pertoon say énergie moom panthère moo la koy jox suprême white bi nga xam ne diw la bu nooy nepp soo ko defee sa yaram luy gargar ak xoos-xoos ak tëndandiir ak ay reew lépp lay dindi kon nuyu mu yaakaar ne juddoo ci réew mi ndax tee bu éclaté ñu ne déet na waay Western Union ne la yónnee ak jot ci man la gën a gaawee soo yónnee njëg bi wàññeeku bu ñu la joxee tamit mbir mi lay gaaw fépp ci àdduna bi ñu ne déet na waay tàngal mant bi nga xam ne moo ñëw tàngal bi nga xam ne danga koy màcc mu neex nga noyyi mu neex ngay aara ba jar sa baat bu yóbbu ko fi nga bëgg moom tamit garasi nañu ak lan ñu ne sànqal bii nga xam ne mooy sànqal suñu noflaay garasi ñu macha allah ak lan tamit. ñu ne am na beneen boo xam ne mooy organique bii tax seen karas ak seen dëñ ak garaw yi nga xam ne dafa xeeñ te xasaw wala tilim boo ko raxasee mu topp la ak ban tamit waaye waaye su may lim fii laay fii laay fanaan jàpp leen na daal équipe bi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw di Pierre de Silva Youssou de Silva ànd ak équipe bu mag bi ca régie ba ñu tàmbalee ko ci jigéen ñi ma madame Guissé kooku jëkkëram jolof jolof la ma nga foofu toog jàpp ci liggéey bi Bamba ma nga ca liggéey ba topp ma nga ca liggéey ba ak ki nga xam ne moom mooy vieux mbub euh, euh, petit mbub ma nga ca liggéey ba Aliou Niang Lom da kambareen ma nga ca liggéey ba Babacar ma nga ca liggéey ba ñoom ñëpp ak Matar ña nga ca liggéey ba vieux Diouf des fois mu romb romb la bokk ci liggéey bi waaye soba ko ci boole su ko defee Pape Samba bi nga xam ne mooy Pape Kéemtaan laa ko tuddee moom ci boppam ma nga ca liggéey ba kon mbokk yi ñu waajal suñu wari waaye tamit waajal suñu weekend bi ñu war a def fële ca kaw <laughs> ca sponsor yi ñëw leen rek waaye sponsor yi leen ñëw fii ku bëgg feeñ fii ngay jaar ku bëgg lu leer fii ngay jaar ku bëgg ñu gis la fii ngay jaar caméraman yi ñëpp ngi ñëw dama ne fii lay mujjee kon gars yi waxtaanu ca kaw ci yor yooru koor ci suuf waxtaanu koor ca ndeyjoor wara ca càmmoñ waaye ca aara ba jal ci ustaas yi nga xam ne yéen a ma heure bii buñ soxla ñoo fiy toog jeet gi ibaadi yow la yàlla yónni ci jaam ñi yaay ngeen ngi mbindeef nabi yaay sunu yonente muhammadu rasulullah haine des ennemis à ton égard. ñu koy remercier di ko féliciter moom Ami Collé Dieng Dieng Sala di xale boo xam ne wax dëgg yàlla dafa déplacé équipe technique bu mag ba dëkk ba nga xam ne moom mooy ca Maroc waaye tamit dafa clip bu am solo waaye tamit Seydina Muhammad sallallahu alayhi ko ciy féliciter ak ñi nga xam ne ñu jàpp ci clip yëpp yàlla ko ci yàlla defal li nga xam ne lu kawe njortam la. ndax woy na loo xam ne lu daw yaram la sol ci lu lu ba xale ak mag ak ndaw ñëpp bëgg ko kon Ami Collé wax dëgg yàlla yal na yàlla dëgëral sa baat yàlla dimbali la ba li nga way mu tas sa barke tak sa barke njaboot yàlla dimbali la ba nga raw say maas ndax xale bu yoroo ma ci tàngal yeey say guney ndaay su ko defee ñu tàmbalee balaa ñuy def ñëpp gërëm kilifa diine aada yi cosaan yi nekk ci réew mi di ci jiite suñu papa alaaji Cerno Sama Samura bi di grand chef religieux nekk foofu cem atam waaye di nuyu tamit sëriñ Abo mbakke bu xalif général bu kër sëñ Fallou Mbacke sëñ Abo di wax dëgg yàlla di sama xarit di ko nuyu di ko ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram sëriñ Abo Mbacke nekk foofu ca Touba yàlla ko yàlla defal fan bu gudd ak wér gu yaram Alaaji Ousmane Ndiaye nekk foofu ca HLM Angu Mous ak soxnaam Adja Mam Bousso Cissé mangaan Mangane des grands chefs religieux marabu opérateur économique nekk foofu ca dëkk ba nga xam ne mooy Maroc ay ñaari soxnaam ñu ngi leen di nuyu soxna Sadio ak soxna Fatima ñoom ñëpp ah, Abdou Mangane mooy seen borom kër ñu leen di ñaanal ñaanal fan bu gudd ak wér yaram waaye di nuyu tamit bu baax ki nga xam ne mooy oustaz Ale Badara Sy ak ay ñaari soxnaam Fama Samba soxna Awa Ndiaye di nuyu tamit suñu papa El Hadji Ibrahima Aïdara Tidiane di grand chef religieux ñu koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram Serigne Habib Gaye chef religieux nekk ca Thiès di Mouhadamu Serigne Mansour Sy borom daara ji yal na yàlla yokk leeram Serigne Mame Ass Mbaye di sama xarit sama wëlëre moom tamit nit ku yàlla baaxal la ñu koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram di nuyu tamit cardinal Théodore Adrien Sarr di ko ñaanal tamit fan bu gudd ak ñi nga xam ne nekk ci euh, abbé yi ak ki nga xam ne moom mooy abbé Roger ñoom ñëpp ngi leen di waaye di nuyu tamit docteur Cheikh Kanté directeur général bu port di sama xarit waaye tamit nit ko yàlla baaxal la ndax moo wax na Kouthia capital immatériel bokk nga ci moom ndax da nekk koo xam ne yaa defar sa bopp lépp ci loxo suñu borom kon ñu ngi koy ziar di ko gërëm di ci am mbégte ak contentement bu mag di nuyu tamit képp koo xam ne yaa ngi déglu waxtaanu koor ca kaw ca jaar-jaaru Abu Bilal ya kon mbokk yi su ko defee gis ngeen keroog bi fi mujjee ci àjjuma kéemtaan yi ñuy def wàcce nañ fi taw ba ñëpp jommi taw nañ fi génn ba ñëpp ne lii du dëgg taw kon xam ngeen ne kii nga xam ne moo toog di wax ak yéen am na lu ko yàlla may ndax ci diggante Xurasin laa ko amee soxna laari bi ma ñëwee ba dugg ci dëkk bi nga xam ne moom mooy Xurasin ca bët gànnaaru Israël sama premier examen de passage ñeenti bu xaaba yi ñoo fa nekkoon nee ma kan batar buut ak kan bar ndux ak kan abu bandax ak kan puutar ñoo toog ci membre de jury bi taxaw na le ñu ne kii balaa ñu ko jox diplôme dinañu won li nga xam ne mooy xam-xamam ci diine waaye xam-xamam ci li nga xam ne mooy cerveau machine noire ndax mën na ko war a mënu ko ndax buñ ko jàkkaarloog loo xam ne ay épreuve yu difficile la dina ko def alxatimi nga xam ne moom a jàngal daa day joxoñ ak ki nga xam ne mooy batar buub ak batar batar làkk ko ci arab na ko wala kël-këlal <laughs> kii taxumaa jàmbal kii maa ko jàngal ne ko wa zalama la wula ana ka wula wa tuuna al tarikal <laughs> laaj leen ko mooy question orale laaj tontu loo leen ko laaj mu tontu Pierre da Silva ñu jël ay xottu bi teel koy toj def ko ci suuf jël ay weñ ak ay pont yoo xam ne toll na sama loxo bi yatt ko ba pare def ci xal ci kaw na ma da ngay julli ci xotti bi yi da ngay ci pont yi <laughs> da ngeen de da julli ci xotti bi teel yi da toog ci pont yi am na ko ne ci ligne bi allo. maaleykum. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. maaleykum salaam soxna si foo ñuy wooyee. waaw. sama taalibe ban. sa taalibe ami. ah soxna ami ban. waaw. na nga def. bilaay maa ngi alhamdulilah. yaa ngi en direct yow la ñuy déglu. Ah. waaw. bilaay yaa oustaz man la sa taalibe. waaw. boo wax nga dëgg. xam nga loolu. wax nga dégg wax nga dëgg. fii nag dëkk waaw. da gis ñoo xamante ne naan mhm. ndeysaan waaw waaye man ma gëm li ma gëm rek. gëmal li nga gëm rek bu la ci dara ah. jëlee. maa la wax lii. bu la ci dara jëlee. gis nga samedi conférence ba nga newoon. waaw. fii lañ ma woo téléphone. Mhm. ne ma sa sëriñ bi toj na foofu. wallaay wallaay. ma ne leen ah ñu ne ma waaw. wallaay dañoo toog ci conférence bi waa conférence bi jeex. Mhm. mu ñaanal ñu ne ñu boo leen jógee ku ci nekk boo jógee ci sa siis na nga xool sa siis loo ci fekk yaay boroom ma ne. waaw ma ne. waaw yow fi nga nekk nii ñaata nga yor ci xaalis. man. waaw fi mu nii de yaa Abu Bilal juróom-ñaar dong laa yore. ibil sa pochette. moo bi pochette bi. waa ibil pochette bi. ubbi naa ko. neel wazaama. waaw. wazuuma. waziima. waxaana. waxaana. xaalis waana. xaalis waana. wuuna wuuna wuune. wuuna wuuna wuuna. wazuumu. wazuuri. altarikal wuuna. altarikal wuuna. ibil xool ibil. waa. <laughs> waa yaa. lu xew. lu xew. jàppal jàppal foral. jàppal foral. lagal coupelle coupelle coupelle bu la ca dugg coupelle coupelle <laughs> akbar dama ne ministre de l' économie et obligatoire bi ngay def mën naa ñàkk soo ma woowee ma indil la xaalis boo xam ne état du Sénégal mën na ko barke démb rek kilifa gi nga xam ne mooy ministre euh, euh, du tourisme Youssou Ndour woon na ma ne ma damay bëgg nga kiraama yi ngay def nii nga jëm cee jàppale état bi pour ñu suqaliku <laughs> ma ne ko ñaata ngeen bëgg mu ne état senegal day wër cinquante quatre milliards waaye moom Ndour Waly Mbergane bi ma ko dugalee ci néeg wan ko deux cent cinquante milliards. dafa jékki-jékki ne ma fàttali nga ma sama way bi ma ne ko ban way mu ne ma xaalis neex na xam naa ci dara sàllaaw bu ma ci amoon saako ma ne ko dootul saako da nga naan sàllaaw bu ma ci amoon ay immeuble ba mu fees ak xaalis <laughs> nga wër sama numéro téléphone nga woo ma yaa ministre de l'économie ma defal leen xibaar defal leen li nga xam ne mooy kéemtaan su ko defee gis nga ñooñu nga xam ne ñooy samay taalibe boo demee ci dëkk bu ñu naan Kaolack naanaan am na koo xam ne sama sama sama jabar la ndax kii nga xam ne mooy Daba Touré chéri Assane Diop ñaan ko madame jóob sama xarit la nee na ma foofu ca Kaolack ñëpp yow nañuy waatee koo wax mu ne muñ rek muñ kese te yàlla tax ndax Abou Bilal nee na nañu muñ te muñ rek Binaa Diop bébé Fatou Diop ak Mbayang madame Saw Mbayang Diop chéri Khalifa Saw kooku suñu xarit la waaye suñu yaay di Marie Gomis di nit ko yàlla baax goro bu baax ngi noonu nee na ma abu bilaal saa mu rombee ginaar sama xel dem ci yow moo taxit fu ma ko romb daa lay gën a dent bu ma xam ne yaa moom bu ma mayee may ci xale yi xam ne ne Dakar dafa sori waaye Kaolack mooy fi la neex ñu koy nuyu bu baax di ci am mbégte contentement di ziar ki nga xam ne mooy Assane Diop nit ku yàlla baaxal doomu Kaolack dëkk foofu ca Kaolack ñu koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram Pierre da Silva yaa ngi ba tey ci waxtaanu koor ci yor-yoru koor ba ma ñëwee ba xotti bi teeli kumba xotti bi teel taxaw alxatami daa dee bët yi xonk cur ndeysaan mu commencé nag keroog laay soog a gis alxatami bët yi taa ndax yërëm na ma ma ngay wax ndeysaan ma ngay wax ma ngay wax déglu ko ma wax mu nga naan wasala kalwoo li ala kalwaa kal mutaar kal mutaar wasala kalwoo li ki <laughs> xajiraat nee na ma jàmbaar nga waaye maa ngi lay ñeental yaa ngi mel ni lu ma jur ci man ndax fii nga jëm épreuve bu métti la waaye demal xuusal bul daw bul dellu ginnaaw boobu sama soxna sa lan la Aïcha ma ngay jooy ak ku benn xaritam buñ naan Nafisatu ku taaru te jekk bakkan ba mel ne wangu picc bu reetaane mu mel ne gaal bu bu teeru lan la Aïcha di jooy nan bul dem ci arab am xam-xam jarul lii man yow laa bëgg bul xaru di ma ko wax ci arab naan wasalakal wulaani wasalakal wulaani altarikal wulaani wasumalikal wulakal wula ndeysaan xaritam bi nga xam ne li naan xarit dina gën doomu ndey di nafisatu alxatib moo ko jur daa day ñëw ba ci ndeysaan lan la Aïcha di ko defal ci mbagg bi nan ko lan la lan la halakal habu bilal wasalakal wula manaka wula muñ rek ana kasula waluka laalo wa alkul halalal naan ko muñal sa borom kër ni mu ko gisee nii jàmbaar la dafa ma mel ne koo xam ne dafa ànd ak xadar yow Lalla Aïcha waroo jooy ñun ñoo war a jooy ndekete am na benn xaritu Lalla Aïcha bu soxor kooku seytaane la kanam gaa nga na waj waaye Lalla Aïcha dafa nekkoon ku baax ku ñëw mu téye la seytaane bu bon ñu ko ruugu ruugu <laughs> ruugu ndaw si ruugu la tudd daa dee fekk Lalla Aïcha ak Nafisatu di jooy ndax maa ngi waaj a dem ci épreuve yu métti yi mu daa di koy romb di ko gaaruwaale ci arab nan ko yow de ki tax ngay jooy nii tey ñu toroxal ko kii nga xam ne biiram bu rëy bi ak gàttaayam bi ku ko xool xam ne dafa jëlee xam-xam war na ko ci ci arab la ko wax maa leen ko tekk ci olof waaye nii la ko waxee ci arab wasalakal wala abu bilal wuy na koy wuuna wuuna wuuna silaka woole altarikal wu maanakal fuunal wuuri <laughs> xuloo naara neex xuloo naara neex boobu na fi satu boppam ndax xam na Lalla Aïcha alxata bi da koo yar Lalla Aïcha tëgg di jooy na fi satu na ko ee eh, ruubu wasalmalakal wula tarakal wuuna ana wal wuzuuna ma kafaalakal wuuli wa tarako daa di koy ragajo <laughs> Pierre may ma ragajo sama bët xanaa xamoo naar buy ragajo naar bu jigéen buy ragajo ci lay histoire am di gën a tàng mu ne ko wasilmalakal wuula alakal wuula wal wuula wazalama kalwu ala kalwu wala kalwuuli wazaama kalwuuli am na ku nekk ci ligne bi allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëriñ Abou Bilal. waaw kooku. soo man la kadee sa faal ja Gambia. ah Gambi nga ñuy woote. Gambi laa wootee. fan nga dëkk ci Gambi. ñun ñu ngi dëkk Banjul. fan ci Banjul. Banjul booru si booru féeri bi rek. ah ci booru féeri bi. waaw foofu la ñoo dëkk. mën nga maa wax ñeent dëkk ci Gàmbi. ba ba Serekunda Kembuje Bikaw Banjul Burusu bi ñëpp kontaan nañu ci yow. alhamdulilah. ñëpp kontaan nañu ci yow ñëpp ñu ngi oraayat ci yow. wax nga dëgg. waaye ñun dañoo am lu ñoo metti. lu la metti. ndax yow kiraama yow Sénégal rek nga ko ayamal doo ko ñëwal ba Gambia. ah da nga ma def kiraama ba Gambi. waaw def kiraama ba Gambia. soo ñun dañu am bagage yoo xam ne ñoo ñoo manqué foofu Gambia si Gambia lu ñoo bëgg mooy marché bi HLM bi nekk senegal nga ñëw andil ñu ko Gambia ñun waa Gambia ñu daal di jënd ak ñun waa Amérique ak waa Jamaïque ñu daal di jënd. ah marché bi nekk HLM fii te tax leen jógee Gambie ñëw ba HLM ngeen bëgg ma jëlee ko HLM yóbbu ko Gambie. soo ñun loolu rek la ñoo bëgg because korite bi mi ngi ñëw si te ñun dañoo bëgg a defar ba moo baax comme sénégalais yi ni ko waxee. ah wuyu ma. waaw nga ne foo ñun ñu ngi dëkk Banjul waaye suma famille ngi Témbujee ñi ngi Brikama ñi ñun ñëpp a kontaan si yow jigéen ñëpp kontaan si yow. xam nga xam nga xam nga fu ñu bi burus bi. yow jàppal ne daal am nga jabar Gambia daal. ah. nga burus bi fu ñu naan bi. waaw burusu bi. xam àll bu yaatu na loolu na ñun dañoo ñun dañoo waxtaan sunu biir pour may la foofu kër may la foofu jabar. ma waaw. fan nga taxaw ci marché nga taxaw wala ci mbedd. maa ci taxawal taxawal fi nga taxaw. man taxaw na ma. taxawal xaaral ma jël marché HLM yóbbu ko Gambie. waaw zamanal zamanul wunka wazunu miinawu HLM HLM HLM HLM Banjul wóoru ana marché bi. abo bilal bi ñëw bi ñëw na marché bi ñëw na. Siré Dia kontaan si yow ñun kontaan nañu si yow baax na ñaanal yàlla. bu baax a baax ñu ngi kontaan si émission bu baax a baax ñu ngi kontaan Sénégalais si TFM bi. jërëjëf ndax TFM bi ñu pànkaay seetaan. seetaan. jërëjëf ñu ñun Gambia gis nañu suñu bopp ñun kontaan nañ lu bare bare daal abu bi ñun kontaan nañ bu jënd nag ma jëlaat marché bi ko Sénégal gaaw leen. jërëjëf jërëjëf lu ma Yaya Jammeh ak ñi fa nekk ñëpp te ngeen muñ rek muñ kese ndax muñ rek mooy mooy tax ci su ko defee actuellement nii ku amoon mbokk bu nekk Marsa Salem seeti ko ma nga Gàmbi <laughs> nuyu nañ ko ziar nañ ko Aïcha Ly ma ngi sa vitri ca France sama taalibe la day daanu leer Clémentine Mzale ñu naan ko Tina nekk ca Sénélec kooku raq la ci Émilie Enzale adjoint maire bu Sicap Liberté 1 samay xarit nañu ñuy nuyu sama benn turandoo suñu maam booy la làq na at yu bëri di kilifa waaye kenn mënu koo génne ay bañam lu dul El Hadj Abou Bilal te déggin bi sax boo gisee mu neex nee na ku caa tax dégginam neex muy suñu maam Samba dëkk ca jàmm gën kër ay Aïssata Dia waaye di nuyu Ablaye Fofana directeur groupe sud Aïcha Rama ak Théo ak Soxna Diarra de la part de Serigne Moustapha Mbacké ay sama taalibe yaa ngi yokk bu tuuti gay ñaan ko madame Fallou Diop nekk ca Côte d'Ivoire kooku moo ma bëgg nee na ma Côte d'Ivoire lañ am ci ay taalibe kenn mënu koo compter may am mbégte contentement ci taalibe yi nga xam ne dañuy yokk waa Kër Medoune Thiam pharmacien nag doom ja nday roqoye Thiam man lay waatee nee na su ma ñàkkee dama naan barke Abou Bilal balaa may jeexal xaalis ñëw xarit Thiam taalibe Mansour taalibe Koutia Mansour Ndiaye Ousmane Mbuub ñoom ñëpp ay xarit El Hadj Abou Bilal nañu may wax ne di am mbégte di nuyu tamit Banne Diouf soo kon la nekk taalibe Abou Bilal ak Adja Maram Dieng nekk ca Créteil actuellement mu ngi en vacances kër Adja Thiou Diop ca Hann Plage waxtaanu koor ci lépp soxna laari bi soxna Lalla Aïcha jooyee ba dënd ba tàng batar batar jàpp ma ci ndeyjoor batar buut jàpp ma ci càmmoñ puutar ci kanam Ali ba ndax ak Abu Bundux jàpp ma ci loxo ñu may ñoddi di ma yóbbu ci xol ci xott biteel yi ne ma fii ngay julee tisbaar bi ma sànnee ci xott biteel yi bi dafa tiit ba téye dënn gi ndax mu ngi soog am épreuve bu mel nii mu ngi soog a am élève étudiant bu ñeme affronté xott biteel yu tàng jër yu ñu xotti ma teg sama tànk xott biteel yi commencé ma sargal benn xott biteel moo njëkk daw dugg sama làmmiñ ne ma wane kal tàngal laa màcc ma <laughs> ne ma yow xanaa xamoo tàngal laa màcc ma beneen xotti bi teel téye sama tànk bi ne dinaa ko xotti ba muy naat ci ma ne ko lu tax mu ne ma deret gi ci boppam bu ko batar batar gisee ak batar bu dañuy yaakaar ne am nañu ndam fekk deret gi ci boppam tomate lay doon tomate bu saf suukar war a këccëb bu la neexee ma def ko jus de ma ne ko def ko ma deret gi na car ñoom ñëpp yuuxu na wallaay wallaay moo waxoon ne du xotteeku jékki-jékki deret ba ma ngay làkk arab na leen wasalakal alakal wulakal man bisaab laa dañ ma suukar ba mu saf tànn leen seen lammin am na ku ne allo salaamaaleykum maaleykum salaam kooku. man la Amina. Amina. waa Amina foo ñuy woowee. waaye sama maa ngi lay woowee Pikine sama tur dëgg-dëgg Kaya la. Kaya. waa waa Kaya na nga def. Abou Bilal maa ngi nii rek ndax kemtaan yi ma woonoon lépp laa gis. aha aha ndax kontaan naa dama la gëmoon mais dama la gën a gëm. aywa <laughs> dama laa gën a gëm. wallaay waaye nag yàlla def na ni nag kiiraam kiiraama yi nga ma wanoon daal gis naa lépp. gëm naa la ñoo ko bokk. gëm naa la kontaan naa sama xarit yaa ngi nii toog. waaw. sama tante yi ñoom ñëpp kontaan nañu. ndeysaan ñoom Nogoy ñoom Umu Faal ñoom ñëpp a. kontaan ay waay waay waay jërëjëf jërëjëf Aminta allo. ndeysaan dafa dagg. ndeysaan xam naa ne leer yi leen di jàpp rek ndax jigéen ñi dañuy dugg ak àll waaye ba tey ñu koy wax ne bu fekkee ne mun na jaaraat ci bunt bi. mooy 88 628 22 22 ci nuyu Saliou samba président stade de Mbour nit ku yàlla baaxal ñu koy ñaanal yàlla ko yàlla defal li mu bëgg ci football Sénégal yàlla ko mën na ko yàlla ko yàlla def su ko defee Pierre bu fekkee ne ligne bi xatul dama ne ba xotti bi tel ba daggee sama tànk ba dara gën a car ñëpp yaakaar na dara la ndeke dafa transformé wu nekk jus de bisaab ku deret bi dal nga yaakaar ne. da ngay takk boo defee nii mu sedd guy nga laal mu saf suukar nga ne waa lii lan la ñu daw di xëccante sama tànk di ko muucu <laughs> boobu nag batar batar ak batar buut nga xam ne dañuy naan sàngara tap la ñuy def dañuy naan ba ne zuy ànd ak farmata ba ndax nekk ca kaw ndax ca suuf rafet ca kaw la yàngee ñu ne kii nag mu ngi bëgg jommal lu ñuy def mooy jël ko yóbbu ko ci goudron ba Pierre da Silva boo gisee goudron ba dafa mel na nga jël mbana ñaari barigo tàngal ko goudron ba ñu njëkk a essayé xam lu ñu njëkk def dañu jël ab gëlëm dugal ko ci goudron ba ña ngi ko taalee xurachine mais ñi nekkoon ca yëmbal Sénégal a nañu yuuxu gëlëm gi gis nga diggante yëmbal ak xurachine xurachine nga ci ginnaaw bët gànnaar Israël Israël nga ca beneen Moyen-Orient ca Palestine ca kaw xoolal ni mu soree rek am na koo xam ne ma nga dëkk Thiès pont jam na ko bu yuuxoo waa Thiès sax duñ ko dégg waaye kii nga xam ne goudron dañu jël dugal ci gëlëm gëlëm gi di jooyee Xuraysin ba senegal ñu koy dégg waa léegi Abu Bilal buñ ko dugalee foofu kon xanaa àdduna bi ba yëg ay yuuxoom aku balaari attel dëgg ñu daal di may jël nag takk ma tënk ma jël ba tiimale ma goudron bi boobu alxate bi ngay jooy ndeysaan daf ma bëgg ni doomam daf ma amul doom bu góor man la daa ma may xool na ma làkk ma ci arab gëdd ma nag jox ma jox ma daraja yokku ma fit na ma abu bilaal ma ne ko amu na ma salmal kal ala wusuuna wal taarikal muula wuuna kal wiisaana kal waala halal kal wiina al tarika wa zuumaani na ma jàmbaar nga dawal ma daa day ñëw ba ci goudron bi goudron bi xool ma ma xool ko batar butur ak batar bu daal may bu wax ma dugg biir nga dégg goudron bi di balbali naan bëtër bal bëtër bal bëtër bal baata bat bat bat bat bat bëtër bal di ma sargal naan ma yaa neex a nekkal yaa nooy nepp kenn du la lakk boobu maa ngi yëg meew ak ma yëg li nga xam ne moom mooy soowu njar ak soowu nag li nga xam ne mooy meewu gëlëm yaa ngi nekk nekk remplacé goudron bi di ma jaaba jabe ku nekk di naan ma fu nekk lay jaar ndekete goudron bi dafa transformé wu ci sama kéemtaan ak kéemtaanu Abu Bilal alxatami nekk li nga xam ne mooy meewu nag sedd guy ñoom alxatami nekk ci ginnaaw di sargal Abu Bilal naan wallaay wallaay wallaay wallaay wallaay étudiant ba réussir na wasal kël wala kël wula wasal kël wala kël wula wasal kël wala kël wula boobu batar batar ak batar buut mer nañu ndax dañu yaakaaroon na fa lay jaaree dee kon nit ki dee ko xool rek muy dem te ko jàngat bi ci ciy jàngat mooy ki am na ku ne ci ligne bi allo su ko defee.